الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن هما الأبصى والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا أجمعين يوفو فيجيز كم تنيوم فون تبول Tivaouane tv l'information religieuse d'ici et d'ailleurs. ngeen mën ñoo suivre sur les réseaux sociaux moi xam Facebook Twitter Instagram TikTok ba ci chaîne YouTube bii Tivaouane 7TV mooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér te di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam Tivaouane 7TV xibaaru diine ji fii ak feneen. المختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد ذكورا بعد هند مقلد ni nga ko doon waxee sànq rek ñu ngi leen nuyuwaat ci Tivaouane 7 TV ñëw rek ngir dëkkal leen lépp lu jëm ci màggal gi seen rubrique découverte tey nag ñu ngi fii daaray Kamil ñu toogal kenn ci responsable mu fa yéene ñu wax lan mooy euh, taarixu daaray Kamil ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo ñi seetaan Tivaouane 7TV salaamaaleykum sëriñ bi maa ngi leen nuyu nga wax ma tur nan la. maaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi tudd Ousseynou Guitara nekk daaray ci coordination liggéey bi. léegi danoo ñëw pour bëggoon xam lan mooy daaray Kamil dañ lay déglu rek nga wax ñu taarixu daaray Kamil. waaw daare kañ moom mi ngi ko dégloo day mel ni kërug euh, alquran la jëm waaye kërug alquran la waaye kërug xasida la waaye kërug xam la kër la xamante ni lépp lu aju ci wàllum alquran ñu ngi fi ci loo xamante ni ay sët Sëriñ Tuubaa yi gi ñu ko bind kër la goo xamante ni lépp lu aju ci wàllum euh, euh, xasida ci wàllum Sëriñ Tuubaa ak ay téere xam-xam ñu def ak ay témoignage ñu def mi ngi fi ak lépp lu aju ci xam-xam boo xamante ni soxla na ko ci àddunaam ak ci dundam lu ci bëree baree bëri euh, ñu ngi ci barab bi daal kan mu nekk barab boo xamante ni barab bu am taxawaay lu ci yoonu murit barab bu am euh, avenir bu ko bu am solo ndax lu bëree baree bari ci euh, yoon wi ci wàllum xam-xam fii di ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké denc kon ñu ngi ko sanc ci atum 1977 ci xilaaf ak Cheikh Abdoul Ahad mi nga xamante ne moo ko taxaw ba liggéey bi yem ba nga xamante ne ngay gis yëpp ci ab liggéeyam bu sell la moom Cheikh Abdoul Ahad <coughs> mu mel ni ci ko waxee léegi daaray kaamil tur bi dafa wolofee lu tax waa ji sëriñ bi tuddeewu ko bibliothèque wala leneen waaye mu préféré tuddee ko daaray kaamil pour lan la lool noonu waaw bibliothèque sax la bibliothèque la waaye Cheikh Abdoulaye moom taalibe gi ak euh, fonk sëñ bi mu tuddee woon ko daaray kaamil ndax euh, loolu bibliothèque moom euh, macha allah moom la ci ci norme yeeg ci plan beeg ci lépp ci ci bibliothèque la ak livre yi fi nekk yëpp bibliothèque la parce que am na li bibliothèque di am lépp am na ko ay saal ay livre ay salle de yëpp am na ko waaye bu ñu la daaree na nag yëpp day dem ci alquran waaye bëgg a barkeelu ci alquran euh, bëgg barkeelu def këru alquran loolu la si jublu woon la waaye jëmmi barab bi moom euh, tur bi moom moom moo ci nekk waaye daaree kaamil bi moom turu barke ndax daaree kaamil ko waxee fu ñuy jàngee euh, fu ñu koy jàngee la wala kër goo xam ne alquran dafa nekk ak wala kër goo xam ne ko fay jàngee am na daaree kaamil boo xam ne ci biir jumaa ji foofu moom lañ ay téere nekku fa waaye dañ fay jàngee alquran ji kaamil li ngay dégg ñu koy jàng bi set ci dëkk bi foofu la nekk ah foofu lañ koy jàngee ci biir daaray kaamil mu mu mel ni si li nu jot a dégg yan téer lañ fa mën a fekk yoo xamante ni mën nañ si jëriñu si àdduna ak ci àllaaxira waaw loolu bari na moom téere yi fi nekk moom liy jëriñ ci àdduna rek xasiid yi rek exemple la sëñ bi lim ci def ak lim ci liggéey lu bare bare mën la caa jëriñ àdduna ak àllaaxira Euh, li nga xamante ne la jëloon ci àdduna nag am na téere xam-xam yoo xamante ni Cheikh Abdoul Ahad moo ko jëloon bitim réew indi ko ci barab bi xam-xam yi nga xamante ne aju na ci wàllum euh, fànn yi ñuy jàng ci université xeetu fànn yooyu yëpp indi na ci euh, quantité bu takk boo xamante ni ci barab bi. ñaata ton téere lañ mën a fekk daaree kaamil. waaw xam nga téere moom mënuñ koo xayma ci ton hmm. ndax ton moom beneen affaire la bokkut ak lu ñuy mën a xayma di ko takk ci ay ay ay téere. Hmm. duñ eh, koy wax rek nit ñang koy wax naan sëñ Tuubaa bi ne c'est un cinq cent waaye loolu luñ bind fenn wala luñ wax fenn eh, luñ luñ di wax rek la waye sëñ mom xam lim bind deug deug deug yomb euh lolu ko wax karamati xattu yat yi lim bind mom gis ko mu nek ci ben barab mom yow ya, ya, ya, nana na lool du fi rek nga ko mën gisee ndax fi mën ngaa fekk fi dara mën dem fenen fekk fa kon du question ne bindum bi dañ ci ay ay ay tonne wala ab nombre lool moom euh, wax dëgg yàlla ak guñ foofu. ñu euh, du sore ci téela bu yàgg sëñ Ousseynou waaye dañu bëggoon xam ba xam euh, ndaw ñi nga xamante ni dañoo nekk ci wàllum université bëgg jàng socioculturel bëgg jàng wàllum nasaraan ba xam am na téere yu méngoog yooyu ba xam am na fi. waaw na fi bari na fi lool. téere yi nga xamante ne ñu jàng nasaraan dégguñu arab mhm. am na téere yu ñu traduit yu bare bare bari yo xamanteni bu ñëwé fi ci téere Sëriñ yi yu ci bari ci xasida yi ci téré xam-xam yi yu bari bari tra nañ ko motax tax na ci ndaw yu bari ño xamanteni seen euh, mémoire yi ñi def seen thèse yi ñi def ci téré yooyu lañ koy def loolu mom Sëriñ Abdu Lahat na ci liggéey bu reuy ak Sëriñ sambay liggéey na ci liggéey bu reuy bay téré yu bari bari am nañ traduction ci ci ci arab am bi français ba inshallah ci anglais am na yo xamni ñu koy tambali am yo xamni dina genn ba ci langue yépp nak inshallah dañ ko def waaw ba ci langue yëpp daan ko def eh, téere yi léegi mu mu mel ni kan mooy sëñ Abdou pour ñu jeexal tuuti nga wax ñu si góor gi Abdou moom góor yàlla la goo goo xamante ni eh, doomu Seexul Xadim la nekkoon ab xalifaam ci atum 1968 ba 1990 mooy ñetteelu xalifa moom nekkoon ñetteelu xalifa eh, ñetteelu xalifa la woon waaye jàmbaare woon ko amoon fit amoon fulla amoon amoon jom gëmoon amoon taalibe gëmoon cheikhul xaddim lol eh, yu bari nga gis ci yoon wi mu am fi ci loxoom la amee ci khilafam la amee lu bari yi nga gis ci teggini dëkk bi war may dëkk bi mhm. ci khilafam la amee lu bari nga gis taalibe yi chef gi ak gëm sen ngom, ak ngom, sen ngom, defal sen ngom, ci ngom, ci ci naam ay magam yi fi jaaroon ñom ñom ñom ñoo ngom, taxawal ñoo tabaxalon ngom, ñoo ko ngom, bam bam taxaw waye ngom, ngom, ñëw ngom, dafa ngom, yok ngom, tabax bi ngom, yok finition bi nga xamanteni nit ñi tey lu baree baree baree baree bare loo xamante ni jom mën nañ koo def ci dëkk bi boobu lañ ko bàyyi ci ay ndigalam ak ay tereem lépp loo xam aram na lislaam araamal na ko ñii dem ci yeneen dëkk du ko fa gis te gisuñ ko Touba ci Cheikh Abdou Lahad la moo ko liggéey ci ci dëkk bi war may dëkk bi yaatal dëkk bi euh, jox dëkk bi dimension bu kawe kawe kawe ci yu baree baree baree bare kon Cheikh Abdou Lahad euh, boroom xam-xam la woon boole si amoon xam-xam lool jekk woon alquran lool ci mokkal ak ci firi eh, xamone aduna yalla dogal mu kaddu ma sha allah fu mu waxee ñëpp déglu ko mhm. fu mu waxee ñu xamne ki limi wax lu nekk ci xol la te ci xol lay jëm kon mom ay mbiram mom, yaat na lool te buñu nekkon fi diko wax fi liñu fanan ndax lim liggéey ci yoon yi yaatu na ay projet ba léegi ci lañ nekk université bi Cheikh abdou Cheikh Mamadou di egalé Cheikh abdou moo moko tambali won mhm. eh, liggéey yoon ci liggéey bu am bu takkon tay bu toog mom Euh, terrain bi du am wala xalaat bi du am mhm. waaye xalaat bi moom da ko dëppale woon na ko bibliothèque bi mhm. ginnaaw bibliothèque pare rek ci la ko songu ànd ak moom aja sëñ na Ousseynou rédaction Tivaouane 7TV jógee ba Tivaouane ñëw ngir màggali bés bi ni ko ku tedd ki waxee woon ñëw leen santale ma yàlla looloo taxoon tey Tivaouane 7TV ñëw ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu doon seetaan waaw ñu ngi leen baax Tivaouane TV Tivaouane 7 TV leen ñaanal yàlla suñu borom yokk seen man man yokk seen xéewal ndax li ngeen def lu rëy a rëy la Tivaouane ak Touba moom benn la amul différence Cheikh alaaj maam alaaj Malick Cheikh ñoo bokkoon lu ñu doon yëngatu ñoo bokkoon lu ñu woote ba pare ay mbokk lañ bu ngeen duggee ci salle boobu di ngeen ci gis benn table bu mag boo xamante ni niñ bokkee da ngeen ko xam bu baax doon leen ko liiree kon ñu leen di sant leen gërëm ci seen teewaay fii ci màggal gi leen ñaan yàlla ak yokkute ak xéewal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja, ay ni ma ko waxee woon eh, eh, tiwa won set tv li ko dole won ben far ci safari ba tay, ba suba ba après ganaw suba dañ koy and ak yeen ngir magal bëss bi ngir eh, jëmmal bëss bi ndax ni ni ko waxe won ki ni euh Serigne Touba moñu may li nga xamanteni mom moy màggal gi waaye kaddu cant la kaddu ngërëm la ndax euh, nee nañu ko santul nit doo sant yàlla te cant gi dañ koy delloowaat Seydina Ouseynou mii mi ni mayoon euh, tuuti ci tempsam ñu ñëw waxtaan ak moom taarixu euh, daaray kaamil xam naa dañuy dem ñu xool biir daaray kaamil incha allah ni ko Seydina Ouseynou waxee woon léegi ñu ngi fii ci biir daaray kaamil ñu fa yéene ne xool téere yi ñi nga xamante ni ku tedd kii bind na ko waaye ci loxo Serigne Abdou mi nga xam ni moom moo initié euh, daaray Kaamil moom la ñuy dox ñu xool gis nga fii yëpp ci euh, la recueil de poèmes composé de Cheikh recueil de poèmes recueil de poèmes composé de Cheikhul Khadim que Dieu soit satisfait de lui sur l'unicité divine le droit musulman le suivisme et la grammaire loolu la fii eh, téere bi di wax ñu dox gis nga fi yëpp ñi ngi daaré kamine ñi ngi daaré kamine ñi ngi ñi ngi ñi ngi daaray kaamin ñi ñi ngi fi ci daaré kamine un recueil de poèmes de Cheikhoul Khadim le bonheur des mourides as as as asmiran li yëpp ay téere la yo xamanteni ni sëñ bi bind na ko ñu mel gis nga ñi ngi fi eh, daaré kamine wa Tivaouane 7 TV amati ngeen lu reuy amati ngeen lo xamanteni tay sagu lislaam la amati ngeen loo xamante ni euh, bëri na ñu ko bëggoon am te amuñu ko euh, yàlla baaxee ñu ko yéen ñi seetaan Tivaouane 7TV ngeen mën a am gis nga yëpp ay ay téere la euh, képp koo xamante ni yaa ngi ko doon wax am na wala amul jàppal ni ñi ngi fii ci biir daare kaamil ay toni toni toni toni toni téere mën nañ ko ci lim te du jeex mën nañ ko ce lim te du jeex ci li nga xamante ni moom mooy daaray kaamil Euh, di eh, ñaanal Cheikh Mouhamadou muntaha Mbacké yàlla payu ko fi mu and ak wér liko ko waxe rek neena na lepp lo xamanteni xamante ni nit ki da ko war ngir jeriñu ci ci dundam bu ñëwé fi ci daré kamine amna fi ci transcription en français transcription en anglais transcription li nga xamanteni mom moy ci yenen lakki à part français bi à part anglais bi neena na ci doon jëm mo xam espagnol la moo xam italien la moo xam moo xam moo xam moo xam lakk boo xamante ni am na ci réew mi daaray kamin daanu def lépp lu nu mën pour euh, def li nga xamante ni nit ñi daan ci mën a jëf moo xam nasaraan yi jógee bitim réew ndax bibliothèque la te ku wax bibliothèque dafa yaatu te euh, Amadou am pate ba daawoon na ko wax en Afrique un vieillard qui meurt c'est comme un comme une bibliothèque qui brûle euh, raison pour kel yii sunu mag ñi bind yii nga xamante ni Serigne Touba bind na ko taarix mo xam xasida yi la mo xam alquran la lépp mi ngi fi ci bir daré Kamil sama caméraman bay topuma ñu ñu dem xol yenen ki nax ñu ngi ci daré Kamil ba léegi ba léegi bi moy li ma doon lire sànq ma ni jëlal fii nga xol wa un recueil de poèmes de Cheikhul Khadim le bonheur des mourides aspirants daré Kamil gis nga ko ne rek di dem nax yëpp mom la ñëwal fi

Euh, bu am ay question yi nëbbatu yi ki ay ay laaj yi tontu yi nëbbatu yi bare yoo xamante ni fii téere yi moom lañ fi dëxëñ ñu demaat xool gis nga mooy nun ki mën nañu jaar ni génnewaat ne ndax bu nu demee tamit daanu gis euh, téere yi lépp boo ñëwee gis nga mi ngi nii jëlal euh, bàyyi yëpp téere yi la li nga xamante ni moom mooy Serigne Touba bind na ko waaye Cheikh Abdou Lahad amal kii bi yàlla may ko xel meeg mbax mi xel mu sell mi ba mu mën koo tey def fii lépp ndax moom maa ngi fàttaliku ñu fàttali leen yéen ñi ñu seetaan Cheikh Abdou Lahad ñi ngi ko denc fii ci biir daaray Kamil ndax bërëbam la moom moo ko génnee moom moo ko euh, def li nga xam te ne moom moo ko créé kon duñ def lu dul waaw continuer rek xool ba bërëb bi jël ay quelques PC rek ndax Ousseynou du ma nekk sax di wax ndax euh, Seydina Ousseynou mi nu kii woon léegi résumé na lépp résumé na résumé na lépp résumé na lépp bii mooy bu liiroon léegi gis nga ñu. Euh, waaw bi beneen la accueil de poème compose par Cheikhul Khadim que Dieu soit satisfait de lui au sujet des prières sur le prophète agimiste paix et salut sur lui Vi euh, mi ngi wax naan euh, lépp loo xam te Serigne Touba bind na ko mu jëm ci satisfaction bi nga xam te ni am na ko yàlla am na ci am na ko ci moom ngërëm loo xam te ni yàlla am na ko ci moom moo xam bind la moo xam euh, ay ñaan la moo xam lépp loo xam te bind na taalif mu jëm ci yonent bi moom la ñuy euh, wax fi ci kii noonu daaray kaamil la ba legi fi yaa ngi gis ñu ni recueil de poèmes composé par Cheikhul Khadim que Dieu satisfait wa moy comme bi moom moo continuer bi mo don wax ni moom moo continuer ba ba ba ba nii moom moo continuer ba ni bi mi ngi wax naan recueil de poèmes composé par euh, Cheikhul Khadim que Dieu soit satisfait de lui inutile le faisceau charge const léegi nii ñu dem bàyyi nga nga xamante ni moom mooy dafa bëri macha allah daf téere yi yëpp ci biir daaray kaamil la gis nga lii yëpp ci biir daaray kaamil la tey bibliothèque bu mag la boo xamante ni mën nañu doxtalu jeex mën nañu fi jëlut ay téere mën nañ fi taataan loo xamante ni Afrique waxuma la Afrique mais àdduna waxuma la àdduna euh, lépp loo xamante ni bëgg nañ ko fi mu bëgg nañ ko ci développement fii ci Sénégal à commencer par notre pays d'origine di Sénégal dem Afrique ba ci le monde entier fii boo ñëwee xam-xam yooyu yëpp da la koy jàngal ñu mën am fii ci biir euh, daara yi kamil gis nga ñii ay poème la ay yoo xamante ni ah ku tedd ki bind na ko ay téere alxuraan la ay livre la yoo xamante ni tey wax na ko Ousseynou nee am na yoo si ni seen Abdoulaye jëlee woon na ko ci euh, réew nasaraan yi waaye ñun transcription ngir jàngalal ñun ñun lan mooy développement en Afrique gis nga dañuy continuer ñu dem wala gis nga daaray kaamil dafa dafa yaatu daaray kaamil dafa rey yëpp ay ay téere sa bët da ngay dafa dafa yaatu fi ba boo sànni sa bët da gis lii yëpp daaray eh, kaamil la gis nga kaamil yi dafa bare macha allah macha allah macha allah macha allah gis nga loolu rek la tey nga waaw bàyyi sama cameraman xam naa ni sonn nga ci màggal gi lay gërëm di la sant bu baax eh, ndaxte bu dul woon yow amaana lu bare duñ ko mën ndax man mi wax man amaana man rek maay feeñ waaye ki si ginnaaw ba tax ngeen may gis bàyyi na ñu koy gërëm bu baax suñu cameraman bàyyi ñu ngi kontaan bàyyi ñu gërëm bu baax. ci jappandal bi ci li ngay baye sa yitte bo ba léegi noppalu wo ci magal gi bo ba légui sonn nga ndax da nga bok ci isbu tarhiya da ngay jang xasida bok ci kuréeli tay ni li wax ak yow nii euh, sa wa daayira ñi ngi lay xaar ngeen waron jang ci euh, ay xasida feneen ak feneen feneen ci bank xasida yi ñi ngi lay ñaanal yàlla nga bat bi wër yàlla nga am lu kawe sa njort ndax fi ma taxaw di ko ñaan sama xol la ko tibé ndax euh, xam nga sama ma ko ñaan lo ndax fi ci daara kamil khassida yaak yaa fi lépp ngi fi Tivaouane 7TV mi ngi lay gërëm amul sa fay bu baax mënu nga wax ni euh, maa ngi leen bëgg a gis du may bàyyi sama yitte ñëw topp leen mais defoo ko à travers de ma voix man Babacar Ngom ak ak képp ku bokk ci Tivaouane 7TV ñu ngi lay gërëm bu baax di la jaajëfal Tivaouane 7TV di leen indiloon fii ci daaray Kamil jox leen dig daje beneen découverte ak beneen màggal incha allah ak beneen lieu.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 Tivaouane tv l'information religieuse d'ici et d'ailleurs. ngeen mën ñoo suivre sur les réseaux sociaux mo xam Facebook Twitter Instagram TikTok ba ci chaîne YouTube TV. Tivaouane tv mooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér te di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam Tivaouane tv xibaaru diine ji fii ak feneen.